saa su ne Bonjour mesdames, messieurs. Communiqué numéro sur la pandémie covid au Sénégal. Ce mardi avril le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. sur 466 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Il s'agit de 34 cas contacts suivis par nos services, un cas issu de la transmission communautaire à Niaritali, ici à Dakar. Sept patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable et aucun cas grave n'est à signaler. À ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs, dont 242 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 164 sous traitement. Le ministère de la Santé et de sociale exhorte les populations au des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñëw di leen di jottali lim bi nga xamante ni am nañ ko ci mbas mi ñuy wax Covid fii ci Sénégal ci bësu tey bii talaata di ñaar fukki fan ak benn ci avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na lim bi ma leen di bëgg a jox ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def. fanweer ak juróom dellusi na ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu fanweer ak ñeent moom lañuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne ñu ngi leen di saytu ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi benn ci ñoom jóge na ci li ñuy wax transmission communautaire mooy maanaam ki nga xamante ne kenn xamul fan la jëlee feebar bi ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj juróom-ñaar ci ñooñu bi ñu leen saytoo amatuñu doomu jàngoro ji wër nañ ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér gu yaram mu ngi ànd ak tan fu bu toll nii gisaguñ ci ñoom benn cas grave bi nga xamante ne feebaru mbas bii dugg na senegaal ba léegi ñu ngi tollu ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci nga xamante ne ñoo yor doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wër nañu juróom génn nañ ci àddina benn delloo nañ ko réew mi mu dëkk ci yooyu li fi des yëpp mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xamante ne ñu ngi leen di continuer di faj ministère de la santé action sociale mu ngi gën a ñaax askan wi ne ñuy topp digtal yi nga xamante ne wax nañ leen ko ngir ñu bañ a jot feebar bi te bañ di ko wàllaate ci yooyu ñu ngi dellooti di tere li nga xamante ne mooy nuyoo ak loxo yi nañuy di raxas loxo yi ak saabu ak ndox boo xamante ne danga toog ak benn nit na ngeen fexe am xàll bu tolloog meetar ci seen diggante bu fekkente ne dangay sakkat wala ngay tisooli nanga yore mouchoir soo paree nga sànni ko ci mbarit mi soo yore mouchoir nga jël sa conc ci biir conc bi